عليك صلاة الله ثم السلام comme ni ma koy defee chaque jeudi ci seen chronique santé ñu ñëwaat rek ci feebar bi fi dugg muy depuis le 2 mars ba tey feebar bi mu fi mhm. vraiment ñuy ñaan yàlla comme ni ko taa Francisca waxee sànq mhm. ñu ñaan yàlla yàlla seppi ko fi mu jóge fi bu gaaw gaaw gaaw gaaw ku mhm. nekkaat ku nekk jëlaat ay activité am ku nekk nekkaat ci ay activité am yàlla mën na ko te xam naa ne dina ko def bu soobee yàlla di leen jéggalu rek ci weeru koor bi euh, di leen baal ak te baalu ak bu baax a baax a baax tey nag ni Ita Francesca waxee dama am invité bu xaw a spécial ah il est spécial ñaari casquette la am nee naa ko da nga doon ñaari yoon docteur parce que dafa doon docteur si kayit yi si lijaase yi jax da koo jàng doon pharmacien waaye tamit doon docteur u ruux yi ndaxte macha allah soo ko joxee micro mu tagg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tagg yàlla waaye tamit tagg tagg tagg Mawlana Cheikh al Islam muy Baye Niass mhm. ah, xam naa ne ku ko gis rek dina ko xàmmee. Rahim Dia seen signature bopp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 آلي حق قدري ومقدار عظيم وعليكم من كل قال قن سلام ضيف قلقي إلهي طول الليالي نوره أول الوجود الوجودات فهو أصل الأصول والأنجال لم يزل نوره بأين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقال ثم أتى هل وتجلى نوره في عبد الإله الآلي عاشق روح نسان يا ذو الأوان ذا له من أجل البهاء والجمال قال أما الألم فالموت أولى من حرام مقال آل الكمال أتفلاه وصله بنت وابين وأني أن لا بذاك الوصال كم أتلها بسائر ويهبلا برسول يلو لآل المعالي هنا في بدنها سواقا رسلي نتوى أصله مفاد الغالي وبدا درة اليتيمة حسنا ومع اليمن في رقاي البالي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم الكريم وإبراهيم عبد الإله يا ذا الجمال صلى الله وسلم بين بكم ثم منكم وإليكم دعوتي ثم مطلبي وسؤالي بالبطول صلى الله عليه وسلم فضل رقية أيضا ummi kalsumi zaynabal mifdali waabil sibtayni ali aliyun wa banihi alil abba wal kamali qad aradan ilahu isqabarisin أنكم تلتوا صادة أنصاري حبكم قد براك بودي وأدنى جسدي أهل بيتي آل النوالي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صلى الله عليه وسلم dala jàmm ci plateau bi Rahim Dia neex na lool yow docteur malaat bu ñëwee boo jicré rek ñu ñu kii ñu wér <laughs> bu ñu ñëwee boo defee nii rek mu wér ñu wér Zeynab xam nga nag euh, biñ koy présenté nee nañu thésard mhm. ñu bari xamuñu lan mooy thésard en médecine mhm. ñu bàyyi leen rek ngeen njëkkee ci loolu man maa ngi toog di centraliser d'accord may wax rek ne euh, dafa jaar fac médecine mhm. di waajal jeexal muy dernière année mu war soutenir ren bu soobee yàlla si kàttanu yàlla mhm. ñu dalal ko rek si plateau bi si ñaari casquette yi nga xam ne moom la am mhm. docteur tey soo gisee chiffres yi nga xam ne moom la docteur Marie Khémesse joxe tey mhm. évolution bi ban interprétation nga am nga am si si si si feebar bi fu mu nekk ni jamono ji ñu toll waaw asalaamaaleykum euh, ñu ngi tudd Abdourahim Dia nekk euh, étudiant département pharmacie option biologie waaw comme niñ ko waxee rek bu ñu xoolee études yi par rapport ak euh, récemment euh, li corona cas positif ni mu bëri. Mhm. hier comme on le cinquante neuf tey nga am cinquante et un. Mhm. kon loolu mooy wane ni liñ gën a fonk santé Sénégal fii mhm. te loolu noonu ça veut dire que ni barke la. aussi tamit ñu def en sorte que ni barrière euh, préventive yi. ñu ngalla ñun citoyens yi ñu jëm ko respecté. mesure préventive mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. surtout ñu jëm ko respecté. à savoir porter masque bi. lii di laver les mains régulièrement. ainsi que distanciation, distanciation sociale, sociale mm -hmm. que ça soit mm -hmm. un mètre bien un mètre cinquante parce que loolu noonu moom mooy première fardeau bi nga xam ne tey mën na éradiquer virus bi te loolu baax léegi nag sa qui par rapport ak li nga xam ne ni euh, agent de santé yi ñoom ñoo ko war a def bu ñu leen joxee confiance ak matériel qu'il faut rek gëm naa ni c'est ça donne objet ak euh, bu ñu gisee kaay nu muy wàcce loolu sant yàlla la. macha allah heure bii daaw dañ doon wax les comportement adaptés mhm. ci mois de Ramadan. mais ren dañ naan les comportement adaptés non seulement si mois de Ramadan. mais aussi dans ce contexte bi ñu nekk. muy mhm. contexte de pandémie. Mhm. yan comportement lañ war am. waaw par rapport ak comportement bi. je dis que ni ci pandémie bi ak nu mu demee nii. parce que lépp dafa changé. que ça soit couvre kii nii vingt heures loolu dafa am lu bëri loo xam ne dafay changer. Mhm. surtout ce qu'il faut se présenter mooy par rapport ak hygiène de vie bi. Mhm. Mhm. parce que man foofu laay gën a wax. parce que en tant que pharmacien euh, premier approche bi ñuy def mooy hygiéno-diététique bi donc ñun ñi même bu ñu mënuloon def. régulièrement sport comme niñ ko doon defee ñu def le maximum possible même bu dee marche trente minutes la bi ngay def sa alentour bi wala nga am yenn genre matériel loolu ça va pallier. activité physique activité physique ah dinañu jàppale bu baax waaw na ci baax. léegi aussi tamit ñu fas yéene respecté maximum trois repas yi nga xam ne ni moom la ñuy def après kii bi ndog bi que ça soit ndog bi ak reer bi ak xëdd bi. parce que loolu noonu dafay au moins ce système immunitaire da koy gën a renforcer. Mhm. gën euh, virus bi c' est un virus qui est opportuniste opportuniste c' est à dire. Mhm. moom fi muy agir la plupart dafay fekk ñi nga xam ne ni tey. dañoo am ay jafe-jafe ci wàll euh, seen wér-gu-yaram mhm. léegi nag moom moo tax foofu noonu boo jéemee respecté entre il faut utiliser fortifiant yi lekk légumes yi ak euh, def le maximum possible daal surtout par mhm. rapport ak ñetti repas yooyu am na lu bari lu muy pal yi mhm. maa ngi la dégg sànq yaa ngi wax fortifiant maanaam ñu on doit plus euh, xool suñu système immunitaire lañ war a gën a xeex bi fa lañ ko war a gën a surtout surtout foofu surtout foofu surtout foofu parce que je comme tey ki nga xam ne dafa woor benn quatorze heures à treize heures trente yooyu noonu. Mm-hmm. dafay xaw metti mm-hmm. pour mu mën a retrouver lépp lépp habitude boobu noonu. léegi nag li lay permettre nga mën a retrouver loolu noonu mooy nga def le maximum possible par rapport ak euh, repas yi nii nga jéem ko respecter. mais aussi manger des légumes. des légumes loolu la ci baax aussi aussi euh, jël des fruits. Mm-hmm. parce que fruits moom amul app. ñi nga xam ne nag dañoo am ay feebar. comme magi kooku diabète yu mel noonu. kooku ñu dem gis seen médecin approprié mhm. mu expliquer leen xool leen ndax dinañ mën a woo man dama koy faral di wax mangeons colorés maanaam mhm. li ñuy lekk na am légume mhm. soo paree nga lekk fruit dem si am solo maa ngi lay dégg sax ngay wax hydratation bi naan bi naan ndox mi tamit surtout naan ndox bi loolu lu baax la ci parce que je me suis dit que ni surtout bu ñu étaler lu ñu war a naan ndox ci diggante Euh, bi ngay rupture ak bi ngay xëdd mm-hmm. kooku am na lu mën a lëm palier mais nag di wax sénégalais yi bu ñu profité wu ci rupture bi rek mm-hmm. juste rupture bi rek nga bëgg a avaler lépp de lekkandoo lépp dafay metti dafay metti <laughs> maanaam bëgg bëgg a remplacer ndékki mm-hmm. añ ba reer ba finalement tu tu vas pas dormir la nuit tu nelaw guddi non doon nelaw quand tu as le ventre trop plein finalement ay reflux la lay indil wala beneen complication c'est ça le problème effectivement foofu noonu nag il faut que ñu def le maximum possible pour jéem a li ñu war a lekk mais aussi naan ndox régulièrement pour mën a permettre digestion beeg ak lépp li nga xam ne ni yaram bi war na ko jël te lool lu baax la ci euh, mboolem Sénégal d'accord alors tey dernière question xam naa fii laa yem yow ci question yi parce que mhm. beneen nee naa docteur ñaari yoon ka beneen da a zikirloo encore daa war de dafa metti bon léegi traitement bi yaa ngi dégg fan yi passé ñu ngi wax benn molécule artémisia mhm. ban vision nga ci am jóge nañ ci hydroxychloroquine ñu ngi ci mhm, mhm. waaw boobu noonu comme je pense que ni euh, vision bi ñu ci am mooy comme li professeurs yi ñu ci am de gën a la wàcc docteur de façon très générale parce que comme artémisia yaa xam nañ ni que ni ici au Sénégal c'est mm. pas encore essayé c'est développé kon donc ñu ngi sous-entendre que ni wàllu Thiès lañ ko gis yu mel noonu nañu bàyyi scientifique yi surtout les biologistes ñun ñu liggéey ci bu baax mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu pharmacopée ici au Sénégal mm. buñ defee ak waa botanique waaw ak waa botanique surtout ñoom madame Badji <laughs> ñoom professeur euh, Bassène uh-huh. buñ ci defee étude bil mm-hmm. buñ ko émettre état bi rek mm-hmm. gëm naa ni ñoom dinañ ci am ay éventualité mhm. récalcitrant yi nag loo leen di wax parce que c' est vrai que mhm. ñu mhm. bari ñu ngi respecté comportement yi parce que soo xoolee résultat yi pourcentage yi day wàcc je pense dix lañ jógee woon sept ba fu mu nekk nii quatre donc je veux dire que sénégalais yi ñu ngi respecté mesures yi mais ba tey dina am ñoo xam ne ay têtes brûlées la ñuy doon waaw waaw tu l'as dit ah <laughs> foofu foofu dina metti parce que comme on le dit rek loolu alquran moo ñu ko jëkk a jàngal fa zakkiri naw zikra tanfa'u mu'minin mu ne ayez l'habitude de rappeler parce que c'est bénéfique pour le musulman. parce que rappel boobu noonu la répétition est pédagogique comme ñun ni ñu koy waxee. de plus en plus agent de santé que ça soit infirmier bi que ça mhm. soit le pharmacien que ça soit le médecin bu ñu xeeb suñu moment yi waxtaan ak suñu population. Mhm. ba ca biir kër gi di leen wax na ni tey feebar bi sa existe. Mhm. parce que Sénégal moo am benn zaaru idéologie boo xam ne ni la plupart. bu dalul seen proche rek duñ ko comprendre. Mhm. alors que loolu loolu ça existe bel bien. ça existe bel et bien. y a qui tant que gisuñu ko. voilà voilà te pour dire vrai xëy na peut-être euh, ministère de la santé ak anonymat yi ñuy demee c'est juste pour le respect de la personne. Mhm. ak ñun ñi moom moo tax ñuy bañ a def yooyu. Mhm. mais nañ xam ne ni maladie bi ça existe. et que ñu jël suñu matuwaay qu'il faut balaa nga xam ne ni tey dinañu sonnal. et aussi apaisanté wu sur les cas communautaires. parce que foofu noonu moom moo gën a gën a tax parce que quand on perd vraiment continuité fil bi ça devient compliqué. effectivement mm. effectivement et c' est quelque chose qui est assez compliqué parce que tey mënoo jàkkaarloog nit ki ou bien benn porteur sain qui est asymptomatique. maanaam ki xam ne yor na jéeg euh, feebar bi waaye manifesté wul benn signe mhm. mënoo koo xam fekk defuñu diagnostic bi mhm. kon donc nañu respecter mesures préventives yi surtout mhm. comme instant yi moo d'ordre bi mooy restons chez nous nañu dellu suñu kër yi dem toog fa bu dee amuñu activité yu nécessaire yoo xam war nañ ko def d'accord après entre temps ñu bàyyi ko ci loxo personne de la santé moi j'ai une question parce que balaa muy dem wala xam naa ne zikr bi moo ci topp foofu lay tàggoo mais nga wax ñu un message à lancer envers les jeunes je fais ça parce que mon mon médecin d'entreprise Mbaye Diop nee na bu ñuy wax mun nañoo wàccee parce que c'est vrai que tu suffoques mm-hmm. euh, sooy sooy euh, sooy amoon message message booy lancer mm-hmm. à la jeunesse mm-hmm. parce que léeg-léeg surtout weer bi ñu nekk yooyu ñu ne la jaamul yàlla defal lii defal lii abstinence nangam nangam et puis puis ainsi de suite ainsi de suite yow nga ne doo fu mbaxal neexee yaa nga fa di nëbbatu di naan te defoo ko kenn qu'est-ce que tu. rigolade lañ koy jàppee. waaw foofu ñoom daal ay genre dàq koor quoi. man gis naa ñoo xam ne sax ci net bi dañuy toppandoo yenn yenn prêcheurs yi. Mhm. di gis naa ko démb ñu woon ma ko di toppandoo yenn prêcheurs yi ni ñuy waxee ni ñuy kiiwee lan nga leen di wax. foofu message bi may lancé rek mooy que avant tout nit ki bu waxee ni euh, jullit la. Mhm. dafay def la maximum possible pour respecter li nga xam ne moom ak yàlla ñoo ko sekk. maanaam bu ma nee moog yàlla moo ko sëy mooy que li nga xam ne ni charia la ak sunna la mhm. te bu ñu xoolee ramadan mhm. bokk na ci quatrième pilier boo xam ne ci islam la mhm. kon loolu noonu bu ñu fàtte ni mën nga nekk jeune waaye du tee nga nekk ci say activité te teewul nga mën a jaamu yàlla comme il faut et loolu c'est un message en lancé à tous les jeunes ñu xam ne ni tey ñun peut-être personnel de santé ou bien benn informaticien ou bien quoi que ni soit nañu góorgóorlu ci diine parce que bu ñu xoolee ni maladie bi ak luñ ci mën a wax rek mooy nañu delluwaat suñu bopp la ñuy jàngal ci lu wér ci jàngal bi mooy delluwaat sa bopp nag mooy tan fi ngay toog yow kese ba wetu sa bopp yow nga xam ne ni tey yaak yàlla rek lañ koy waxee ah, mhm. nga foog ne ni foofu noonu li nga ci jaam yàlla yàlla loolu la lay mhm. kon jeunes yi te jeunes yu ndaw ñoom ñooy doon yi magu euh, suñu sëriñ Baay dafa doon wax ne ni euh, mboolem àdduna pays boo koy kii nii da ngay xool ci ndaw yi mu ne mhm. yan ndaw mu ne ndaw yi nga xam ne dañoo jàng mhm. ndaw yi nga xam ne dañoo cultiver mhm. te yaakaar naa ni cultiver ak jàng yëpp ci roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam la roy ñu baax ñu mhm. kon ki nga xam ne dafay roy Baay Ñas dafay roy Sëñ Tuubaa dafay roy El Hadji pour njub la ci wut kon nañ a def le a góorgóorlu ci diine bi ñu xam ne ni tey loolu rek mooy mujj quoi que l'on puisse dire moo njëkk moo mujj moo moo mujj te mhm. Baye Niass ni nga ko waxee rek daan na wax ne euh, liggéeyal sa bopp la bañ a fàtte sa bopp jaamu mhm. yàlla bañ a fàtte sa bopp la mhm. pour ëllëg parce que loo loo jaamu yàlla rek dala koy dala koy dencal soobee yàlla xam nga docteur c'est bon Aïcha marhaban bi Cheikh Tidiane al Amina بالقدوم للكون في شفاء سيق تجان مرحبا بسيق تجان نلامنا بالقدوم للكون في شفاء بلدتي قاب برها ودياء Seex Tijaan Haydara la daabu layda fadarda safu wadi sububa fi ibaa'u hayimaana likulli qatmin wa katmin حيمانا به ينال رجاء شيخ تجان هيبان لكل فار جليل استراوى من باره الأسفياء هيبان لذو جداد كرام يا له مفقر له وازدهاء شيخ تجان عظما كلهم بدون انتداد خار شيخي وكلهم أولياء أحمد أصله محمد فرقان ثم مختار أحمد المفتاح ثم من بعدهم محمد فور قصرت عن إدراكه القدماء عبد الإله ما الولاء ختام لا رجال الله بوس الله بيد الله ختام لا رجال الله بوس الله بيد الله إمام التاج آل الله وساقي سر آل الله شيخ تجان ألوف القلق معلوفون سفي الله برهام ألوف القلق معلوفنا سفي الله برهام لا أنت الحصن من كل مقوف القوس برهما سقور قالس الأعمى لولا قوال برهما يليل الجنبلا في ظلام أليز القلب برحما خوص من سجاياك قياس القلق برهاما إله القلق آتاك زمام الكون برحما باي لقد أوتيك كن فيكون فضل الله برهما حبيب العاقبة وأبوه ولوج الكل برهما أنيك كل جنواك سوى صانيك برهما باي جميل الجابل الكسري لمن وافاك برحما إمام الأولياء كلان بهذا الوقت برهما إمام الأولياء كلان بهذا الوقت برهما بروز الحق وتقي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 xabrihi wa miqdaari azim amin yaa rabbi macha allah macha allah kontaan nañ lool si sa teewaay fii macha allah xam naa ñu bari kontaan nañ ndax dafa bari soppe mhm. maa ngi fàttaliku vidéo ba nga defoon euh, si juma Kaolack ba mhm. nga taxaw nit ñi ñoo la filmé mais vidéo bi dafa toxique. wër àdduna macha allah ñu lay ñu lay ñaanal. ñaanal baat bi gën a gën a gën a. amiin macha allah kontaan lool si dalaloon ko ta Francisca. yàlla wéral baat bi wax naa ko léegi nii. nekk ndaw du tere nga xam fi ngay teg sa tànk. yal na yàlla. sutural ko sàmm ko sàmmal ko boppam ndax ku mu sàmmal boppam raw nga raw yenn yàlla taxaw ko ñu koy ñaanal gudd fan ak wér tubaar fakal la macha allah di wax rekk yow mi toog di seetaan di xale wala nga nekk ci confinement ba daan def say fake news ak daan def yeneen defe naa beneen bu ëpp importance fake news ak fii di nga trouble check fa ngay fekki parce que trouble check booy tukki waroo yóbbu yenn somme yi mm-hmm. soit nga jàll jubal ko ca banque ba mbaa nga viré ko ca compte ba mm-hmm. moog la ngay fekk fee la rek titre foncier bi ñëpp am te kenn du ko xëccoo mm-hmm. fala bu demin chaque waa daa ca dem te kenn du ko xëccoo ku ne am na titre foncier kon jarta xeex jarta xuloo booy wut titre foncier kay di ci ngañ-ngañee xanaa bu àdduna waaye titre foncier moom dangaa judduwaaleeg moom mm-hmm. ku ne am na ko mooy fa ñuy mujjee kon nag su yeboo rek nga jéem liggéey trable chaque fa loo mën ak loo am te xam ne àdduna bi mm-hmm. booy dàqanteeg moom ginnaaw la lay doxee bu la xëtee yemal xiyaam nga yeewu jee mm-hmm. ñu koy sant di ko gërëm Zeynab merci à toi aussi merci Tati ma lay di joxe di ñaaxaat rek nee naa les troisième porter un masque rester à la maison et surtout sooy génn laver les عليك صلاة الله ثم السلام فطرها